asalaamaaleykum mbokku internet a wasaare TV ak yu Dakar Midi ñoo ngi di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant tey nag ñoo ngi fi Parcelles Assainies unité 12 ñu leen fekk fii imaam Saliou Sall imam mu nekk imam boo xam ne Sénégal wala Parcelles wala Dakar ñëpp ràññee nañ ko ràññee nañ ko bu baax a baax ci jëfam yu baax tey nag moom la ñu doon seet si nara wax nara amaat moom waxtaan bu am solo eh, imam salaamaaleykum. wa salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Imaam ñu bàyyi rek nga présenté wu mbokku internet yu Dakar TV ak yu Wassare TV ñuy seetaan. Euh, mbokk yi baada aawuzu billahi min alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim wa sallallahu ala ashrafi alxalqi sayidi almursalin wa ala alihi wa saxbihi dawi ridwani wa tamkin wa ala alihi wa saxbihi al anjumi al mbokki jullit yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, jox ko dayoo bi mu yeyoo moom yonent bi sallallahu alayhi sallam ñu fas yéene jooyal ak yéen benn émission rek jaarale ko ci Dakar Midi wala wasaare point net mhm. inchaa allahu taala bi fadilati fidèle serviteur de la prophète sallallahu alayhi wa sallam mu mhm. Cheikh Alsane Sène taara yàlla mhm. yàlla yàlla defal ko jàmm defal ko sutura euh, ci ndimbalu Seydina Ousmane ak ñu baax ñi nga xam ne ñoom la ànd ak ci émission boobu jërëjëf jërëjëf imam kaddu gi rafet na nuyoo bi jekk na lool euh, balaa ñuy dugg maanaam si waxtaan moo xam actualité mhm. euh, lañuy ñuy laaj rek imam loolu imam lan la waaw mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk na ci roolu imaam euh, comme na ko borom téere ba jàngalee woon rek mooy day doon koo xam ne gor lay doon mhm. day doon ku jàng day doon ku xam day doon ku ñu xam du doon naafiq mhm. du doon koo xam ne dafa am lenn kàccoor loo xam ne mën nañ koo xool ci moom di ko ci sifa euh, rôlu imam noonu la mel parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ci xadis ne yàlla du yëkkati julli ñett mooy soxna soo xam ne boroom këram daf ko fanaan rëbb mhm. yàlla du yëkkati julli sang boo xam ne jaamam daf ko daw daw maanaam jaam bu daw sangam mhm. yàlla dafa yonent bi dafa waxoon tamit ne yàlla du yëkkati julli ilimaan joo xam ne ñi nga jiite dañu la sib loolu mooy rôle imaam ci koñ. waaye tamit dafa bokk wax nga ko say kàddu dafa bokk tamit si imaam maanaam képp koo xam ne nekk na si koñ bi mu mu daal di am ay problème ak ay mbokku dëkkandoom imaam daal di ko réglé maintenant dafa mel ni yenn valeur yoo xam ne rôle imaam la woon dafa commencé maanaam di wàññeeku bu baax a baax euh, si suñu réew fu mu toll nii lan moo ko waral. waa mbokk mi sa laaj boobu de am na solo trop euh, ndax koo xam ne ci defar lañu ko xamoon bu toog ba yàq-yàq di jóge ci loxoom kooku kenn xamatul lu mu doon. Mm-hmm. Euh, li gars yi naan retournement de situation mondiale dafa mel ni ci lañu toll. dëgg la euh, fi diine daan jege bu ñu toogee ba mu di fa yàqoo. Mhm. loolu kenn xamatul noo koy tuddee. waaye nag euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ca xadisam ba ne aw nit du ñu dañ mukk di yàq seen jikko lu dul ne yàlla dana leen jox kilifa yu mel ni na seen jikko mel. Mhm. kon dafa mel ni yàqu-yàqu gi jikko yi yàqu. Mhm. dafa mel ni dafa dem ba commencé laalaale diine ji. ak ci ñenn ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a wax. Euh, kaddu gu nekk mu nekk kaddu yu am solo xam naa ne mbokk internet yu Dakar Midi wala Wassare TV euh, dina si jàng lu am lu bëree bari bari bari bëri waaye tamit comme ni koy waxee sànq maa ngi laaj la mooy rôle waaye bis bu ñu dugg si jàkka ji euh, bu imam toog imam tamit war naa maanaam di yeete à chaque fois mais dañuy gis maintenant jàkka bay bëri day bëri trop trop trop ay problème ñi naan kii naan may jiite kii naan dooma jiite kii naan may li xam kii naan xam am nañ sax ñu dem ba si ñoo xam ne sax ñoom lañuy am seen place bopp place bopp am ay say place fixe non na ngeen dundee si biir jàkka yi. waaw loolu yëpp euh, mbokk mu baax mi ñàkk dégg diine rek la. Mhm. ñàkk dégg diine moo waral xëccoo bi. Mhm. ndax euh, sunu maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu dafa waxoon ne inna taassuba fi l adyaani mafsadatun mhm. xëccoo ci biir diine yàq rek lay jur. waaw bu ñu te kenn ki sa mën na jiite. ndax dañuy wax ne ilimaan ci jàkk ñun ñëpp bokk soxla. ñun ñëpp bokk bëgg-bëgg. waaye dañuy doyloo kenn ne ko ci mihraab bi. Mm-hmm. bu taxawee ne allahu akbar lu mu def ñu def ko mm-hmm. doo ko jiitu doo ko ëppal lu mu def nga def ko mm-hmm. même boo jamujee ci sa biir julli imaam foor na foor goo xam ni yow mi topp ci gannaaw ilimaan boo jamujee sax ilimaan moo gàddu sa jamuj googu te pourtant ilimaan bu jamujee jàkk jépp lay yóbbaale kon moo tax rôlu imaam euh, bu ñu demee ba di ko xëccoo te mihrab sax nag baat bi ca arab mi ngi tudd euh, champ de guerre champ de guerre nag jërul xëccoo waaw ki nekk ci kanam te imaam mi ngi yem ci diggante bi ñu la liqaamale nga ne allahu akbar ak fi nga naa asalaamualeykum diggante boobu ci nga doon ilimaan mais bu lalu xasee ba jàll rek daanaka amatul leneen loo xam ne ëppalante nañ ko ci suñu biir euh, beneen bi ci desin mooy dem bay bàyyi place ci jàkka mu mel ni dafa am ku ko occupé yeeyoo ko wala bu fa ñëwul kenn du fa toog mhm. kooku moom daanaka dangal diine rek la mhm. waaye tegewul fenn mhm. beneen bi ci desit léeg-léeg sax nit ñi jàmbat ma ko ci sunu jàkk ñun ñii mm-hmm. mooy léeg-léeg nga gis ñoo xam ne bu ñu jiitee buñ paree duñ tàllal seen loxo ñaan yàlla dara mm-hmm. dañuy jóg rek dem seen yoon te julli daf ci bokk ko am ak audience yàlla mm-hmm. wax dëgg yàlla loo doye di doye di bala ngaa jóg war koo jàmbat say soxla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon ñaan leen yàlla doon tele xorom la sax bu leen ko bàyyi beneen bi mu waxaat ni udullaha wa antum muqinuuna bil ijaaba ñaan leen yàlla te am confiance gu dëgër ci ne li ngeen ko ñaan dana leen ko may mhm. wax nga ko say biir kàddu ngeen di julli audience la ak sunu boroom mhm. waaye audience boobu tamit ku ñu war a jiital maanaam waru nekk n'importe kii te bu ñu mhm. xool léegi jàkka yi moom euh, maanaam yaa ma neex la yi fale. ba nag sax bu ñuy fal imaam euh, des fois ñii dañ naan ñoom euh, imaam bii moom a neex imaam bi lañ war a fal. ñii naan imaam bii lañu war a fal waaw mbokk mi jërëjëf ñàkk dégg diine rek mooy comme li ma la waxoon sànq muy dellusiwaat. Mhm. ndax amaana kuy gënalaate sax te ki ngay gënal xamuloo biiram xamuloo biteem parce que mhm. gënal piir yàllaa ko man mhm. ndax dañuy wax ni nit bala ngaa gënal nit day fekk nga xam biiram xam bitteem te xam-xam piir àggul ci diggante nit ak nit xam piir mi ngi yem ci diggante yàlla ak nit parce que koo xam ne bu sàngoo dootoo xam ci lum nekk bu ubboo ci nekk xamatoo lum nekk su waxee ndànk doo ko dégg bu noppee xamuloo lum nar kooku mënuloo gënal kenn yàlla nag moom mi nga xam ne boo sàngee sànguwaale ko boo duggee nit duggaale ko boo uboo ubaale ko soo waxee ndànk mu mel ni da yuux soo noppee mu xam li nga nar kooku ku mu gënal rek kookaa gën te yàlla gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ay critères ne ku mel ni yaa gën xayrukum man taallama al qur'ana wa allamahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni woon ki gën ci yéen mooy ki xam-xam-xam ba noppi nangu koo xamle kon ku xam rek jàppal ni ku baax nga. Mhm. waaye ku nangoo xam li jàppal ni kenn gënu la. Mhm. loolu mooy rôle bi. parlons de ces critères là mooy critères yi nga jël wax xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko digle. Mhm. est-ce que si bàyyi xel à chaque fois bu ngeen di fal imam. incha allahu taala loolu ñu ngi koy bàyyi xel xëy na nag du fépp. Euh, léegi daanaka suñu jàkk yi mën naa ne la majeure partie li ko yàq. dañuy gis koo xam ne carrière am yëpp daf ko servir euh, état wala daf ko servir tubaab. ba carrière am jeex mu ñëw ci jàkk ji occupé ko indi fa xëccoo a xeex boo xam ne te boo ko laajoon julli gu yàqu nuñ koy defaree sax du la ko hmm. wax loolu nag daanaka moo bari ci jàkk yëpp mooy suñu feebar principal mhm. Mhm. yéen yooyu bu doobaa bu amee maanaam si jàkkee na ngeen koy réglé est que parce que des fois tamit dañuy gis maanaam diw peut-être moom mooy jël xaalisam def si jàkka ji moo tax ñu koy mettre à chaque fois au devant de la scène mhm. par rapport ak ñeneen ñi waaw xam nga jël sa xaalis def ci jàkk ji euh, firiwul nga occupé ba occupé fa benn poste firiwul loolu Euh, jël sa xaalis def ci jàkka ji dafa fekk ne sa bopp ngay defal ndax yàlla ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah mhm. lu ngeen defal seen bopp ci néegu yàlla rek su ngeen demee yowmal xiyaam dangeen ko fa fekk yàlla jëlal leen ko yàlla du sànk jëfi kenn mhm. euh, mu bokk nag ci critères yooyu mhm. yëkkati sa xaalis bu mu tax it nga occupé benn poste ci jàkka ji yëkkati sa xaalis def ci jàkka ji tamit bu mu tax nga jàpp ni yaa gën ki ko ci deful ndax amaana koo xam ne xëy na amul mais indi na ci néegu yàlla bi jàkk euh, euh, jàmm joo xam ne ku ku ku ñu nodd ko ne di nga sawaru julli ji kooku la yàlla soxla parce que tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis ne euh, yàlla yowmal xiyaam dana laaj ay dëkkandoom ne ay ni jiiraan yi ay ni jiiraan yi bu ko defee malaayika yi ne ko yàlla yow kan moo mën a yeeyoo ci doon sa dëkkandoo bu yàlla defee appel boobu ne ana samay dëkkaale ana samay dëkkaale ba malaayika yi laaj ko loolu su ko defee yàlla lam leen di tontu mooy def naan leen ñi daan dundal sama jàkk yi ñooñu ñooy samay dëkkandoo dundal jàkk nag dafa am ay charte mhm. mooy di ci joxe sa alal di ca teew mhm. euh, may nit ñi jàmm doo terroriser kenn mhm. mais xam nga lislaam bi xew léegi euh, tabaarakallahu l'islaamu terrorisme la dem nañ ba ci jàkk yi la ñuy defee conflit de guerre yi mën ngeen bokk kàbbar taxsibuhum jamian wa xulubuhum satta bokk kabar allahu akbar te buñ sël buñ sëlmalee ku nekk fëkk yat uti sa morom diine jooju yàlla soxlawu ko parce que tamit yàlla waxoon na ci alquran ne wa man azlamu mimman man masajid allahi an yudkara fi asmu wa saa fi xarabiha ulaika ma kaana lahum an yadxulaha illa xaifin lahum fi dunia xizyun wa lahum fi l axirati azabun azim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa jotal ci alquran ne kenn dàqul tooñ ki nekk ci néegu yàlla di ko fréquenter te ba noppi terrorisme yi terroriser nit ñi ba boo ñëwee ci jàkka ji sax booy dox ndànk ngay doxe ngir bañ nga am koo xam ne mu yëg la euh, terroriser nga nit ñi ci jàkka ji ba boo ñëwee bu ñuy julli sax doo ñemee sëqat mhm. euh, yooyu yëpp dafa am ay critères yoo xam ne léegi mu ngi ci biir jullit ñi te loolu il faut ñu jéem ko dindi buñ bëggee l'islam bi dem mhm. Mhm. mu doon loo xam ne am solo fa ñuy jaaree dem daal dugg si deuxième part bi mu nekk loo xam ne actualité la Sénégal temps yi yëpp coow li bëri na si lool lool lool mhm. wax nga koy say sànq sànq euh, loo xam ne yonent bi santaane nañ ko des fois am ñu koy def normalement mhm. waaye tamit des fois am ñoo xam ne tamit dañuy jàdd yoon mhm. euh, temps yi ñu dégg benn imam sa mbokku imam génn si benn télé euh, de la place yëkkati ay yoo xam ne Sénégal yu bëri ñoo ngi koy ñaawlu parce que Sénégal xam nañ ko quatre vingt quinze pour cent musulmans la waaye quatre vingt quatorze yoo xam ne yéen ñëpp quatre yoo xam ne ñëpp ay chrétiens lañ ak yeneen xam ne ethnie yi wala yeneen wala yeneen tuddine yi ñoo si mhm. euh, ñu gis ñoom mu yëkkati ay kàddu mhm. euh, jëmale ko suñu mbokk chrétiens yi dem ba leen di teg si ay ay terroriste ak yooyu noo mhm. déggee kàddu googu waaw mbokk mi kàddu googu de xam naa liñ ci mën a wax mooy erreur de communication la rek euh, dañuy wax ne accidentellement ci làmmiñ nag moo gën a garaaw parce que day daj am réew njuumte la ndax suñu mbokk chrétiens yi ñoom yàgg nañ ci réew mi te jàmm rek lañ mos a seq Euh, te it bi ci des mooy yàlla dafa defoon appel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa ikraha fi diini mm-hmm. diine amatul forcé mm-hmm. fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur kum neex gëmal kum neex weddil mm-hmm. leneen li ci des nag nga xam ne moom moo dox ci suñ diggante ak ñoom mooy jàmm lañ war a séq euh, réew mi dafa am garab gu fi sax goo xam ne mag ñu suuxatoon nañ ko ba mu màgg dañu góorgóorlu ba bu car yi ak reen yi dagge ci ñun ni muy dagge nag mooy euh, insulté diine jàmbur soo ko defee bu ñu saagaa sa diine rek yow ya provoqué loolu bien waaw parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bi mu ko wax ci alquran qul yaa ayyuhal kaafiruun mm-hmm. ñu bari jàng nañ ko qul yaa ayyuhal kaafiruuna bi ko yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. euh, booba yéeféer yi dañu ne ko woon dañu bëggoon nga jaamu suñu yàlla ji juróom weer mm-hmm. juróom benni weer yi ci des ñu jaamu ko sa borom yàlla ne ko ne leen li ngeen di jaamu man du ma ko jaamu li may jaamu yéen du ngeen ko jaamu mm-hmm. adduna du yàggit ba mu ñëw fekk si leen ci li ngeen di jaamu jaamu la leen ko mm-hmm. kon ku nekk am na diine na ku ne dem ak diiney boppam mooy wala kum lakum diinukum waliya diini mm-hmm. uh, diine yooyu nag lislaam am na diine yum fi fekk diine kristaan ci la bokk diine faramason ci la bokk am na diine yu bari yum fi fekk mais yàlla dafa dogal bu lislaam yàlla bu xase ba yónni yónnant su fa kooku jógee rek keneen ka koy wuutu mooy doxal fonction bu bees mhm. noonu la mel mhm. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. bi mu egsee li mu fekkoon sayidina Isa doon ko doxal loolu dafa toxu ndax yonent yàlla Isa waxoon na ko ca euh, waxoon na ko ca euh, banu Israil ne leen ne woon na leen yaati min baadi ismu rasulun yaati min baadi ismu ahmad am na beneen yonent buy ñëw ci sama gannaaw bu tudd ahmad keroog bi leen yonent bi feeñoo wax leen ne man la dañu ne lii njëbar la kon foo mën a fekk rek di nga fekk ñoo xam ne gëm nañ lii mhm. ñii gëmuñu lii mhm. mais daal li essentiel mooy respecter ngëm-ngëmu jàmbur mhm. kooku dafa am solo trop te it dafa bokk ci màndu waaye ak li amoon ci sunu mbokk imam Sall moomu euh, erreur de communication la rek njuumte la euh, ñëpp di ko jéggalu parce que réew mi jàmm rek moo fi xaj ni ko gars yi di waxee ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. Mhm. waaw loolu daal moo ci doon euh, li ci am solo. Mhm. Mm. est-ce que tamit maanaam sànq nee nga la. Mm. mais que des fois du nokk du nekk maanaam gëm bu ëpp wala des fois nga bëgg maanaam feeñ wala bëgg wax dara loo xam ne peut-être mën na si maanaam am am am am lii parce que nga gis maintenant euh, Sénégal buzz dana lu nekk te imaam n'importe qui nga gis sànq maa ngi koy wax sama wax naan mm. n'importe qui nga gis mu daal jog jóg euh, bëgg nekk imaam. waaw xam nga wax dafa garaaw. Mhm. surtout bu ñu la këppe kamera yaa ngi ko waxee ci salle bi yaa wala yaa ngi ko waxee ci benn studio. Mhm. mais fi muy egg sa kàddu fi muy àgg. Mhm. pour nga weddiwaat ko sax du yomb. Euh, te jamono ji ñu toll léegi. Mhm. Euh, jamono média la. te guerre média baaxul. Euh, erreur de communication bu mel noonu bu amee. yàlla dogal na maa ngi dégg ñu ne defaat na ci sax ak rëccu te wane ne dafa juum. te loolu rek lañ ci soxla woon. parce que yàlla tamit yonent bi daf ni Mm-hmm. annaasu kulluhum xata wa xayrul xatauna attawaabuun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne mm-hmm. nit ñi ñëppay péché ñëppay tooñ mais ki gën ci ñiy tooñ mm-hmm. mooy koo xam ne boo tooñee jéggalu sa borom te yàlla kooku rek la soxla te comme jéggalu na li ñu bëggaat mooy réew mi tegewaat ci jàmm ak salaam euh, xëy na waxe ko nag pour ut buzz kooku moom xëy na keneen la engagé ndax léegi lañ nga gis koo xam ne surtout Sénégal léegi man damay fat gis façon oustaz yoo xam ne Euh, dañuy génn ci réseaux sociaux bi wax catastrophe boo xam ne après euh, kenn mënta xam. Mhm. dafa mel ni que diine ji sax léegi daanaka dañ ko def benn siphon boo xam ne dañ koy foyoo nu mu ñu neexee. Mhm. te loolu erreur la baaxul. Mhm. nañ ci yàlla musal. Euh, foofu laa jëm sax mooy maanaam tey jii nii man gis nañ ko Sénégal maintenant ku jóg ne sëriñ la. ku jóg ne imam la. ndax lan ndax alal gi wala ne parce que parce que bëgg nga nit ñi ràññee la est-ce que loolu nekk loo xam ne peut-être mooy indi yenn erreur yi. waaw bokk na ci. bokk na ci nag boo seetee coupe du monde coupe d'Afrique bi passé mhm. daanaka da nga ciy dégg ñoo xam ne sax dañoo dem a dem a dem ba dugg ba xuus ci euh, mayu yàlla yàlla yaakaar ne yàlla waaw te it nag yàlla daf ne wa indahu mafatihul ghaybi laa ya'lamuha illa huwa mhm. caabi kumpa yàllaa ko yor kenn xamu ku dul moom mhm. kenn ku nekk ci ñun lii xew suba xamoo ci dara moo tax doomu aadama euh, ak noo mën a tolloog noo mën a mel danga nga war a maandu ci dogalu yàlla parce que dañ la programme yi indi la te amuloo woon ki amal amalal la te xamaguloo luy xew maandul ci ay yëfam ndax yàlla nag moom moom xam-xamu kumpa euh, léegi nag gars yi dañ koy def definu wutukaayu xaalis léegi la sax nga gis ku génn fent ay xadis yu bees te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, waxoon na ne erreur gënta garaaw fen ci man ta tey ko man kazaba alayya mutaamidan fal yatabawwa maqaduhu min an naar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam newoon na képp ku ma fenal te tey ko mu wóor la ne li ngay wax waxuma ko mhm. na nga fàkk ca safara yàlla nu ci yàlla musal waaw yonent wa sallam loolu la waxoon mhm. te léegi boo seetloo jamono fi mu toll bëri na fi loolu euh, tabaarakallahu kenn xamatul lu xew daal dafa mel ni yàlla yore yoreetul dara mhm. lépp ñee ko yore téyel ko seen bopp mhm. di ko dogal dañuy dem sax ba nit ñi sax des fois maanaam dañuy jël lu yàlla wax si téeréem bi téeréem bu maanaam indi seen xel lépp la wax ñu la non yàlla du comprendre dem na sax ba maanaam diine gi ñi féete euh, xutba wolof ñii di xutba ak lii ñii di xutba wolof ñii di xutba arab ñii di xutba français mhm. euh, lu waay neex def loolu lislaam la la si wax waaw xam nga ci wàllu xutba dafa am ñaari version benn boo ci déglu rek mën a jàpp ba ca des mhm. dafa am ñoo xam ne dañu ne xutba bi kenn du ko def ci olof mhm. dañ ko war a jàng ci arab parce que ñaari ràkk la dëgg la am ñoo xam ne dañu ne xutba bi dañ ko war a firi ci wolof parce que ñi ngay wax ak duñu ay arab ay olof lañ. Mhm. pourtant dëgg la ñaari dëgg nag duñ jaxasoo ci mel ni penc il faut am ko ci fare bor. Mhm. Euh, ñi tënku ci ne dañu war a xutba ca arab parce que dañu ne xutba bi ñaari xutba yi ngay def jóg toog jógaat. Mhm. ñaari xutba yooyu moo remplacé yeneen ñaari rakk tisbaar kon wér na. ñi nga xam ne nag léegi dañ ci indi innovation bu bees mooy ne. dañu war a ba ci arab bu ñu xutbaa ci arab ba noppi jóg deuxième partie bi ñu bayaan ko ci wolof mm-hmm. euh, man benn côté dinaa ko nangu mm-hmm. ndax ñi ngay waxal duñu ay duñu ay arab te yàlla dafa wax ne du ma yónni benn yónent lu dul ci làmmiñu nit ña ma ko yónni mm-hmm. ndax yàlla bu fekkoon yónentub séeréer mu yónni ko ci biir ay joolaa duñ ko dégg bu jëloon yónentub njaago dugal ko ci biir ay pël duñ ko dégg parce que yàlla mooy nosee noonu jamonoom te yow mi taxaw téye xutba bi di wax ak nit ñi jàppal ne rôlu prophète nga yor ci seen biir ba ba ngay noppi moo tax lépp loo leen di wax rek na tege ci alquran ak xadiis ak sunna bu ko nit ñi déggee xam ni kii kat li mu ñu wax yàlla kese moo tax euh, léegi nag pëccëxoo bi dafa bari ci diina yi jàkk yi da ngay dégg jàkk yi bàyyi diw jàkk yi diw ñàng te yàlla dafa joxoñoon ci alquran ne wa anna al masajida lillahi mm-hmm. fala tad'u ma allahi ahadan jàkka yi samay néeg la maa ko moom. Mhm. bu leen fu tudd kenn ku dul. léegi sax su nga dégg fii jàkkay Ousmane jàkkay Bas. jàkkay kay fa tabaarakallahu bari na trop. bari na trop waaye ñàkk dégg diine rek la. Mhm. waaw ñàkk dégg diine la. Mhm. parce que tamit diine pour nga jariñoo ko yàlla bi mu bi mu bëggee ñu segg ko jariñoo ko borom xel yi la wax ak. mosu leen dégg yàlla yónni yonent bu dof. mosu leen dégg yàlla yónni yonent bu muuma. parce que lim soxla mooy boroom làmmiñ wu leer sam xel weer pelap. nga mën a wax ak nit ñi luñ mën a dégg. Mhm. kooku la yàlla soxla. nit ñi ñoo nit ñi mën a dégg maanaam ça veut dire balaa ngay wax ak nit ñi tamit il faut mhm. nga am xam-xam yi mais des fois Sénégal mhm. maintenant lu ñu gis léegi. borom xam-xam yi ni mu lay wax tuuri duuna. parce que des fois bu ñu demee ba gis yenn imam wala yenn Sénégal ñu jàppee ay ngandam borom xam-xam. Euh, dem ba naan euh, tey jii nii sëy si jàkk sax peut-être yàlla nangu na ko wala ñu la sëy mun nga takk nit si même pas. Euh, une heure de temps nga sëy ak moom après nga daal di ko fase jël diine bi daal di ko fowee kàddu yooyu noonu est-ce que du moom moo tax léegi maanaam yéen suñu valeur yoo xam ne wala yéen diine boo xam ne ñun xale yi waroon nañ ko am ñu dem ba ba ba amatuñ ko wala xamatuñ ko waaw xam nga gis nga mbir ku ci bokkul mënoo ko yàq mhm. mbir ku ci bokkul mënoo ko yàq dëgg la xam nga ñun doo dégg mukk benn protestant bu jógee fële wala benn chrétien bu jógee fële ñëw ni nii ngeen di takk sëy ci jàkk parce que ñoom seen yoon newu ci maandu nan ci mhm. mais ñun ñi nga xam ne ci suñ biir ñi ñi ciy tuddee ay borom xam-xam léeg-léeg nga dégg surtout bu weeru koor jotee da ngay yéemu ci yàlla mu ñëw kay léegi nga dégg te euh, loolu ngay gis ko naan la mën nañ takk sëy ci mhm. pour temps du ci maye doomam mhm. da ngay dégg ko naan la sëy bu ngeen dajee ngeen waxtaan bu juboo mu ngeen takkante bu ngeen doylee tas yàlla fondewul woon noonu famille ndax bi muy wax ci wàllu takk sëy yaa ayyuha nnaasu ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa jaala minhuma rijalan kasiran wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bi wal arxama inna allaha kaana aleykum raqiban léegi-léeg sax nga dégg aaya boobu ñu di ko jàng ci bu ñuy takk sëy euh, mooy ragal yàlla mooy sos diggante bi su ragal yàlla amee ba noppi wax ju jub tege ca wax ju jub su loolu amee ba noppi ñu sàmm li ñu séq mooy xam ne yàllaa nga koy fukk lu fu mu toll parce que mariage du du du du du loo xam ne danga koy jàpp tey suba nga bàyyi te léegi boo seetloo suñu réew mi li nga fiy dégg sëy yu tas mm-hmm. kenn xamul nu mu toll léegoo léeg nag ku góor ki du régler mm-hmm. wala soit ku jigéen ki du régler euh, beneen bi ci des am na lu ma ci xaw a jaaxal tuuti dem naa benn takk te ngecc mm-hmm. ma dégg ca génn góor gu waxtaan wax ju am solo mu ne xale yi léegi bu ñu leen di mayee dangay gis parti ku góor ki dañuy mel ni ku yor mbërum làmb parti ku jigéen ki dañuy mel ni ku yor mbërum làmb loo xalaat ci xeeti baax baax danañ ko wax ci ku góor ki loo xalaat ci xeeti baax baax dinañ ko wax ci ku jigéen ki mais malheureusement bu ñu dajee balaa mat six mois wala un nga dégg ñu ne divorcé nañ ana yu baax yi ñu leen doon tuddal kon yooyu dafa mel ni euh, dañ koy wax nii mais du dëgg ci ñun parce que sëy tamit yàllaa ko takkalu mhm. te yonent bi daf ne an nikaaxu sunnati man ba an sunnati fa laysa minni mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne sëy sama sunna la mhm. sama sunna la na ngeen ko def ni ma ko defee képp koo xam ne nag danga da nga sib sama sunna bokkutuloo ci man yaa boole sa bopp te léegi sëy yi li mi tas bari na trop Euh, beneen bi ci desit mooy sama mbokki ustaas yi léeg de communication bi daal faute yi dafay bari trop erreur de communication man waaw faute yi dafa bari faute yi dafa bari parce que lu ko waral jàng bi moo moo moo moo kiwul wala déedéet déedéet euh, dafa am fu jamono toll léegi muy jamono jamono audiovisuel mhm. te pour nga feeñ foog nga wax catastrophe mhm. ko def vie bi tasaare ko ko vie bi tasaare ko ci noonu ngay amee noonu mhm. moo tax lu bon bari léegi moo tax lu bon bari léegi euh, ku jóg rek da ngay jàpp ne boo waxul musiba kenn du la déglu wala kenn du la seetaan. est-ce duñ jaawale maanaam lii di jàng ak xam-xam tamit. waaw dañ koy jaawale nag déedéet dañ jaawale jàng ak dañuy jàng jaawale jàng ak neexu làmmiñ mm-hmm. loolu la jaawale. waaw neexalu làmmiñ baril coow am fit. Mm-hmm. ñu déglu la nga am mbooloo tabaarakallaahu waaye ñi jàng tabaarakallahu tey it nag jamono ji dafa toll foo xam ne ñi war a waxuñu euh, maam Serigne Touba radiyallahu dafa waxoon ca téeréem boobu ñu wax axiru zaman mm-hmm. mu ne jamono ji toll ni muy jamono jiital jaahil jël jël ñu am xam-xam ñi desal leen gannaaw mm-hmm. tey nag wax na ca masalikul jinaan ne mm-hmm. euh, wa talabu raxati fi daaril fadixati fi fi daaril xururi fadixatun yowma alqiyamati nee na ku bëgg noflaayu aljanna wala noflaayu yowmal xiyaam ëllëg di ko wutee noflaayu àddina fii nee na yowmal xiyaam say jéego du fa neex. waaw gàcce rek la lay jural. moo tax jaamu yàlla kenn mënu ko am ci kër gu sedd. il faut nga def ci effort nangoo jàng te nangoo jafe nag. yooyu rek la soxla. mu doon loo xam ne lu am solo la fi ñuy terminer rek mooy loo xam ne peut-être benn actualité euh, xam naa temps bi su des bareetul mais dañ koy phrase rek mu nekk lii di affaire de homosexualité xam ngeen ni Sénégal temps yëpp imaam yi jóg ne gis neen ànd sim sàmm jikko yi ñoo ngi koy xeex à chaque fois mm-hmm. yow en tant bi mooy est-ce que tamit yaa ngi doole ñii di sàmm jikko yi wala noo gisee seen taxawaay waaw laaj nga lu <laughs> laaj nga lu sévère nag laaj nga lu sévère ndax li tax mm-hmm. Euh, bari na jàngoro yu fi nekk yu ñu waroon a faj lu jiitu ñuy faj bu homosexualité bi. Mhm. mais buñ ko jël rek tam-tamal ko yëkkati ko teg ko ci kaw nit ñi dëgg na góor jigéen kenn du ko applaudiser baaxul. Mhm. baaxul mais xam nga ñun suñu réew mi du réew mi àttewoo lislaam mhm. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ida wajadtum man faala amala xawma luutin faqtulul faaila wal mafula yonent bi sallallahu alayhi wa daf ne woon su ngeen fekkee góor jigéen rey leen ka koy def a kañ koy def mais tey suñu réew mi tey koo ñemee rey ñemewu rey kenn parce que boo ko reyee état daal ci sa kaw mm-hmm. euh, am na loo xam ne na état moo ñu ko gàddul ca kanam yàlla buñ demee moo koy lay loolu ñun suñu yónni wu ci mm-hmm. parce que tey tamit mënoon ni lislaam lay attewoo ko sàcc sa loxo ñemewoo dagg loxo kenn mm-hmm. mënoon ni lislaam lay attewoo ko njaaloo caw ko ñemewoo caw kenn Mhm. nit ku nekk dafa am droits humains dafa am droit boo xam ne moom la la sa constitution tënk ci ngay dund. Mhm. homosexuel nag kenn du ko applaudiser. Mhm. Euh, sàmm jikko yi li ñuy aar wala li ñuy défendre baax na trop. ndax askan woo dégg ñu di ko tudd rek jikko ju baax a tax. Ahmad Shawqi radiyallahu anhu wax na ko ne um, innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa inhumu dahabat axlaaquhum zahabu askan woo fi dégg. ñu di leen tudd ay siècle ca gannaaw yoo xam ne passé nañ ñoom nekkatuñ existé tuñ mhm. mais ñuy tudd jikko yu baax yi ñu amoon nañ meloon a tax mhm. mais ko amul jikko ju baax kenn du la tudd waaw moo tax nag sàmm jikko yi li ñuy euh, suuxat fa tabaarakallahu baax na mhm. mais tamit ñu xeexee ko xel te bañ ko xeexee doole waaw nañ ko xeexee xel te bañ ko xeexee doole xeexee xel bi mooy seet noo ko defaree stratégie bi fexe ba kenn du jeng jëm ca gis nga sàngara si ñuy jaay daanaa dégg Alaaji Moustapha Guèye mm-hmm. yal na yàlla guddal fanam muy wax ni euh, dafa am ku ko laaj ne ko ci sàngara mm-hmm. dafa seetlu ne julli di ñoo ëpp luñ koy naan mm-hmm. nan lañuy def bu dootuñ ko fi jaay mu ne ko dootuñ ko fi jaay loolu mënta nekk foog ñu jaay sàngara waaye buñ defaree suñu jikkoy doom yi ba kenn du ko ci naan bu yàggee ki koy jaay lambale moo tax te lobby boobu dafa commencé am doole ci réew mi yàgg na fi nag Mm-hmm. moo fi jiitu l'islam fuuf mm-hmm. mais jamono yii ni mu commencé développé ku mu tiitalul ku ne da nga di gone xëy na mën nga ci mucc mais sa doom xamoo fu mu jëm euh, te beneen bi mooy lobby yi léegi xew daanaka lépp dañ ko teg ci xaalis mm-hmm. te ci suba maa ngi am ku ma ci waxtaan ak gis nga nit boo ko bëggee xëcc mu ñëw fekk si la ci li nga ne fexeel ba yi ko jafe nga di ko yombalal boo bu yàggee rek mu am complexe ci yow loolu moo indi affaire lobby góor góor jigéen yi waaye di ñaan yàlla suñuy doom mucc ci euh, kenn du ko applaudise nag ndax jàng naa ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni mm-hmm. saa bu góor tiimee moroomu góoram ñu seq lu mel noonu mm-hmm. nee na aras day yëngatu ba nar a daanu malaayika yi ñoo jàpp ci ci piye yi mm-hmm. di jàng sóoratul ixlaas ba keroog merum yàlla di dal kon xam nga lool garaaw na trop euh, muy loo xam ne amul benn bàyyi mu bu koy jëfandikoo xam nga yàlla bu demee ba ni nit ñi ulaa'ika kal an'aami bal hum adallu mhm. rek garaaw na waaw ñooñu dañu mel ni ay bàyyi ma wala sax bàyyi ma tane leen parce que ñoo gën a sànku mhm. bàyyi ma te bàyyi ma sax du ko def que bàyyi ma ci nature am la nekk mhm. moom xar-xar rek lay doon fas fas rek lay doon mbaam mbaam rek lay doon mais nit nag su génni ci cadre nit ba dugg ci cadre mala day yées mala moo tax nit dina euh, dina egg fenn fi ci jaamu yàlla ba gën malaaka mais nit tamit dina egg fenn fi ci suufe ba gën a torox bàyyi ma waaw yal nañ ci yàlla musal mhm. euh, di encourager sàmm jikko yi ne leen fi ngeen teg seen tànk foofu la mhm. waaye di encourager yi yeneen imaam yi ne fi ngeen teg seen tànk foofu la mhm. waaw ndax mbir duñ ko xeexe doole xel lañ koy xeexe euh, ñàkk a déggoo bi nag buñ fexe ba nit ñi ñi bokkul ci diine di ñu feewale ñun ci suñ biir lislaam diine jàmmoo la woon diine booloo la woon comme ni ñu ko waxee sànq rek bu téeméeri nit daje woon du te kenn jiite. waaw ëpp ca xam-xam gënu ca rawu ca mais dañ koo doylu ne ko waxal na suñ soxla mm-hmm. kon na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla dolli sutura yal na yàlla dolli naataange mm-hmm. yàlla téyal nu boppam te bañ ñu bàyyeeg suñu bopp mm-hmm. di ñaanal suñ jàmbaari lislaam ji jàmbaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Alassane Sène taare yàlla na yàlla defal ko sutura defal ko njabootam li muy kër kër yi ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yal na ko yàlla defal jërëjëf yi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. yal na ko yàlla gër defal ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. Euh, particulièrement ñi ma bokk ak Cheikh Alassane mënuma leen ne lim euh, xanaa damay seppi ñi nga xam ne ñoom laa ci gën a këfin rek ku ci mel ni Seydina Ousmane mi mm-hmm. moom fa tabaarakallahu kenn amul payam waaw lii moo ko dox ba mu sotti. di gërëm sëñ Malick seen di gërëm xaaja euh, ale ndaw jawrin di gërëm sëñ Modou Mbuub di gërëm Assane Si Mansour asan Diallo mam bu naamu sow ñoom njoogu xaaj mm-hmm. Malick Sow ñu ngi ziar ñëpp ñoom Ibrahima Pen mm-hmm. ak képp koo xam ne bokk na ma ak yow Cheikh Alassane Sène rek maa ngi lay gërëm bu baax a baax mm-hmm. di la ñaanal jàmm yow yal na yàlla defal la sutura yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf imam Saliou Sall ñoo ngi lay gën a bu baax a baax kàddu gu rafet na waaye tamit di gën bu baax baax bokk internet yu Wassare TV ak yi di Dakar Midi waaye di gërëm tamit sama cameraman Ousmane ñoo ngi lay ziar bu baax a baax te encore encore une fois di lay gërëm di leen jox dig daje prochainement incha allah rabbi si Wassare TV ak Dakar Midi salaamaaleykum